chien de Paris dans le jeu politique est-ce pour décourager le président Sall par rapport à une troisième candidature ou est-ce une façon de veiller euh, sur ses sur ses intérêts la France fait de la fumisterie en fait. fait pas de la fumisterie la France fait du business. les les les, les états n'ont pas de la fumisterie économique tout à fait parce que quand boo dégloo avocat Mame Mbaye tubaab bi xam nga ba ñu rendre verdict bi da ngay gis waa APR di kontaan kontaan lu waa Pastef di mermerlu xam nga waa waa Pastef ils étaient très contents mais dañu mer merlu waa APR ils étaient très énervés mais ñuy kontaan kontaan xam nga wala mais quand boo dégloo avocat wu Mame Mbaye Niang lu ko ci intéressé mooy la bon décision bi génn na mais empêché wuñu kële mu nekk candidat la deuxième chose l'économie dëkk bu ñu bloqué woon dinañ ko bàyyi mu noyyi parce que quand même les gens ont vu que saa yu amee manifestation enseigne français la ñu gën a attaqué c'est comme si lu il venait protéger ay ay ay euh, quelque part euh, certaines grandes entreprises françaises c'est une chose mais fi ñu nekk nii dañoo toll ci àdduna boo xamante ni Sénégal fi mu nekk ci àdduna ku mu neex ku mu naqari les les Français dañu discuté ak pouvoir discuter ak opposition discuter ak rebelles yi discuter ak ñiy xeex les Français vont discuter avec tout le monde ça c'est clair cest dire que di xaar France naan Macky Sall rek lay discuter les Français vont discuter parce que quand les Français et les Marocains intérêt yu ñu am Sénégal dafa bari posons-nous la question pourquoi roi du Maroc waxoon daf yu ñëw ba léegi ñëw fi mais est-ce que le gouvernement du Sénégal doit accepter ce jeu là wala ils n'ont pas le choix lu ci mën c'est le monde des affaires cest dire que euh, les gens bu ñu discuter parce que kenn waxul officiellement que discussion am na mais bu ñu ko deful officiellement ñu ngi ko def officieusement mais les gens discutent parce que enjeu yi am solo gis nga Sénégal bu doon entreprise presque vingt cinq à vingt pour cent français ko moom marocains entre quinze et dix-huit pour cent mais ñooñu nag Sénégal bu nekkee ci benn affaire dañu ñëw taxaw ah, parce que seen intérêt dafa nekk en jeu day mel ni entreprise boo am vingt-quatre pour cent des actions mais doo jël risque bàyyi ñi moom entreprise bi yóbbu ko en faillite da nga ñëw taxaw ndax danga am une partie de l'entreprise qui vous appartient donc seeni intérêt jàppal dañ koy sauvegarder te ñoom d'habitude du du n'importe quel opposant la ñuy waxal parce que amul fi benn chancellerie buy nekk ci réew mi bu ñu demee à un an des élections du def ay études du ñu def ay sondages pour xam la situation euh, politique économique xool représentativité yi jéem a xool nag nan la ñu mën a mettre en place benn stratégie pour ku mën a ñëw duñu duñu perte moo tax moi je me dis que euh, loolu on a on avait même pas besoin d'en parler parce que c'est c'est c'est une chose normale et les Français xëy na lañu lañu la ñu gis mais les Américains vont le faire les tous les autres les Canadiens vont le faire les Marocains vont le faire parce que dañoo mënoo am intérêt ci benn dëkk doo xam président buy nekk ci dëkk bi après xam nga boo seetloo Ousmane euh, euh, président Ousmane Sonko bañ ko invité France 24 gis nga journalistes yi li leen intéressé woon lépp boo xoolee euh, kii bi. est-ce que buñ la boo boo boo faloo da ngay dem ànd ak Russie. gis nga ba ba mu ne no il cherche ses rek pare nañ ci émi bëggatuñ dara ci émission jeex na pour vous que mais. dëkk yu mag yi seeni intérêt dañ koy dañ koy sauvegarder moo tax muy mun a bon pour ma revenir ci li Pape euh, Pape waxoon sur sur les ressources pétrolières parce que foofu mooy erreur bi jox benn exemple bu banal xam nga bu ñu nee ñi nekk ci secteur minier bi li ñu seeni besoin li ñu soxla en termes d' approvisionnement c' <coughs> est deux mille huit cent milliards et en matériel. voilà mooy approvisionnement rek ndox këyit lépp. deux mille huit cent milliards ñu ne la entreprise sénégalais yi liñ ci mën a satisfaire c'est moins de trois cent milliards donc deux mille cinq cent milliards day génn bitim réew état donc dafa war a bàyyi waxi revenu yi laa ci am mais nan lay def ba teg en place à partir des besoins de ces entreprises parce que euh, ITIE day def liggéey bu am solo ci loolu à partir des besoins des entreprises l'exemple le plus patent c'est cimenterie bi rek emballage bi benn entreprise moom moom euh, moo fi nekk di defar emballage nga am trois cimenteries benn bi rek kële mënu koo jaay lu matal nga xamante ni état bi bu doon un état stratège nga xamante ni day ou que mu jàppale entreprise ba mu yokk. comme ni ñu ko defee woon ci Covid bi tout à fait avec la PNA. mais mais boo ko mënta jàppale nga ubbi beneen entreprise parce que état rôle bi mu war a am mooy c'est pas parce que revenu yi mooy lan ñiy exploiter pétrole bi xam nga kuy dépenser mille milliards pour pour sa biir dëkk pour euh, jëli ay marché yoo xamante ne lépp nag d'habitude am na entreprise yoo xamante ne dans le domaine pétrolier seen lekk sax dañ koy jëlee bitim am na ñoo xam seen lekk Brésil lañ koy jëlee Brésil lekk li ñu lekk ba ba xoolal xoolal Sénégal ba Brésil nga xool c'est ce marché la même si boo tegee local content local content c'est c'est 33 pour cent ñoo ko ci xam ah dans le secteur privé ñoo ñoo local content mais les gens pensent que état bi stratégie bi mu war a teg pour parce que loolu état moo koy def état mooy naan une entreprise yow am nga 1000 milliards yoo xamante ne war nga koo soxla pour jënd ay ay marchandises say 1000 milliards laay jéem a mais état bi tout sa communication c'est gars yi bu ñu exploiter pétrole bi revenu ñu may fay tant la. ren lan nga dégg ren 23 milliards la ñuy am déwén 53 milliards la am et c'est loolu mooy manque c'est peanuts moo tax loolu mooy manque d'ambition et c'est ça le problème moo tax c'est-à-dire euh, li ñu waroon def bu ñu arrêté woon xeexu politique ba ba yi fi dal ku ci nekk ñu challenge la xool mais les milliards en plus de ça les entreprises yi nga xamante ñooy exploité suñuy pétrole ils viennent avec benn top management boo xamante ni dans les loo xamante ni Sénégal yi mën na koo def boo xoolee da gis employés yi mën nañu am dix mille employés amuñu ci benn problème mais le top management qui gère yëpp dañ koy jëlee bitim réew yëpp top management da ngay gis naan cinq pour cent rek wala trois pour cent rek ñoo ci étranger mais les trois pour cent ñoom ñooy gérer l'entreprise en question ñooy gérer en fait toute l'ingénierie financière nga xamante ni bu ñu defee seen i montant parce que suñu dëkk yi amuñu ay financiers. parce que fii lu ñu woowee régie financière mooy impôt dom impôt euh, douane trésor kenn du ci financier ñële ils viennent avec des cabinets financiers chevronnés c'est-à-dire que bu ñu bu ñu dérouler le Sénégal ne verra que du feu et les et les vrais débats c'était ça comment faire pour contre contrecarrer leen comment faire pour imposer leen que euh, dans le top management moom ay Sénégalais yu am ci ay post stratégiques mais vraiment des post très stratégiques comment faire pour que lépp lu ñu am euh, euh, lépp lu ñu soxla en termes de besoin ñu wut ay entreprises sénégalaises yu leen yu leen ko jaay mënoo am Rufsac par exemple je fais pas de la publicité mënul satisfaire le marché de Sococim nga am Dangote nga am Ciment du Sahel ñu ñoom ñuy importer këyit da nga am yow ay xale yoo xamante ne amuñu liggéey mais nga focus sur dina am cinquante milliards cette année de de déwén dina am soixante soixante quinze milliards. le problème suñu état yi am la te ce débat sérieux là sur le pétrole. il n'est pas posé. parce que le pétrole du xaalis c'est pas sur les sur le sur les revenus le pétrole mooy l'écosystème bi ñu bi muy créer nga xool ñaata milliards la nit ñi soxla nga xool yan entreprise ñoo mën a nga mën a am en amont de l'exploitation en aval le raffinage du pétrole nan ngay mën a def ba Sénégal mën a casser le prix du pétrole casser en fait de euh, le taux d'imposition pour tirer investisseur direct étranger ne ah Sénégal kat am na stabilité politique courant bi doy na te cherul parce que suñu courant même bu doy dafa cher trop par rapport aux autres pays maintenant stratégie yooyu pour man loolu moo war a nekk débat yi nit ñi nekk ci malheureusement état bi pour man tant que changé wul fusil d'épaule di xaar di wax revenu pétrolier 700 milliards même parce que 500 milliards son premier milliard de dollars avant la Covid bañ ko estimé mi ngi ko waroon am en mais après la Covid après la guerre en Ukraine mën na ko am 2032 wala 2033 mais c'est quoi un milliard de dollars 700 700 par rapport à l'immensité de nos ressources état foofu la def focus di calculer kañ la njëkk am premier milliard looloo tax seen 10 virgule 5 pour cent yi bañ ko waxee croissance efféminée leen non non mun leen ko mun leen mun leen dépasser 8 virgule 5 parce que ressources pétrolières yi leen ci war a indil dara mooy approvisionnement yi entreprise yi soxla mais entreprise yi ñu soxla lépp dañ koy jëlee am na entreprise yoo xamante mais mais cinq pour une année post-électorale c'est quand même une mais parce que dafa aw dañoo amoon ay ressources additionnelles c'est pas du du du liggéey da ay ressources additionnelles yoo xamante ni day fekk si li fi nekk xam nga booy exploitation du pétrole les grandes entreprises seeni besoin day day ngand te PIB bokkul ak PNB PIB du xaalis bu sénégalais liggéey mooy xaalis bi nekk biir Sénégal mais maintenant une entreprise bu war a dépenser mille milliards sept mille milliards pour exploiter le pétrole dañ koy boole ci PIB Sénégal donc loolooy tax PIB bi tëb moo tax mën na tëb ba nekk sax vingt pour cent benn Sénégalais du ko yëg parce que ñi ko moom dëkkuñu fi euh, et ce ce fait le plus mal la ñu jënd ñun jaayuñu leen ko. économie pétrolière dafay générer inflation. mais tout à fait parce que ña koy ñay la ñuy jënd xam nga ku soxla trois mille milliards si. war koo wut ci ay besoin chaise banc table lépp rek approvisionnement comme si entreprise au lieu ñu xool nu ñu fexe ba capter loolu parce que loolu boo ko capter rek xoolal le nombre d' entreprises yi ngay créer xoolal le nombre de salariés yi ngay yi ngay créer loolu lépp na local content bi c' était ça la loi est parfaite la loi sur le local content mais. ni ñu ko bindee sax ko bindee sax xamuñu ko. Hmm. on a fait étude boo xamante ni c' est 33 pour cent ñu nekk dans le ñoo xam. local content bi parce que nit ñi dañoo jàpp ni au Sénégal tamit affaire yi état état bi lay neex mu dugal la ci affaire yi boo nekku ci état doo ci dugg et donc on peut pas avoir pour man on devait avoir cette année préélectorale nga xamante ni dina métti moom moo taxoon man muy Amadou Hop muy Malick nañ nañu nañu sauver gars yi waxtaan parce que gis nga instabilité bi ñuy créer dañ ko nar a créer di xeex di xeex di xeex ba élection jot rek taf taf kenn falu. c'est une instabilité réelle ou entretenue. mais c'est c'est une instabilité réelle mais on n'a jamais eu une opposition aussi forte quoi qu'on puisse dire l'opposition est très forte très forte parce que euh, ku xool opposition bi nu muy xeexee xam ni état bi soxla na mais taxaw waxtaan parce que li ñu war a waxtaan tamit mooy. am na candidats yu war a bokk bon li amoon na xawma article L vingt neuf ak L L trente mais les gens loolu mën nañ ko discuter les gens peuvent discuter sur ça mais moi en tant qu'économiste ce qui m'intéresse c'est que les vrais débats pétrole li nga ci am le revenu président dafa war a bàyyi si naan revenu dañ ci am le revenu ne nous intéresse pas Merci. ce qui nous intéresse ce sont l'approvisionnement yi am